di remercier la présence de la presse ngeen bàyyi seen lépp ñëw fekkee waxtaan bi ak ndaje bi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ngeen may ma nag ma jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi moo xam délégué de quartier yi moo xam imam yi moo xam euh, ñu fi toggal tamit jàngu bi wante nag ngeen may ma nag ma gërëm ma sant di rafetlu tamit la présence des maires qui sont assis ici moo xam le maire Madiop Diop ma koy jox wàccuwaayam maire Grand Yoff moo xam suma xarit suma mag le maire Pala Samb maire Fann Point E moo xam suñu mag suñu xarit le maire des HLM Ibrahima Seydi ñu ngi nuyu madame euh, Diouf Papa Bakar mbay de la commune de Fass Colobane Gueule Tapée ku lim jum ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit tout le conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur waxtaan bi nag euh, luñ ci namoon mooy euh, mën a informer askanu commune u Mermoz Sacré-Cœur en particulier wante tamit en général mën a informer tamit askanu Ndakaaru ci lu ñuy dund ci jamono yi ak tamit ci lu état bi di di def ci ñaawteef ci suñu ay commune parce que loolu mooy wax ci ay ñaaw ñaawteef la ma bëggoon tamit euh, rappeler à l'endroit de la population que ba ñuy voté acte 3 de la décentralisation fële ci assemblée nationale dama bokkoon ci député yi nekkoon ci assemblée bi ma xeexoon ci commission pour que loi boobu mën a jàll ma bokkoon tamit ci député yooyu jotoon tamit xeex assemblée nationale ci plénière pour que loi boobu tamit jàll parce que loi boobu man lu ma gëmoon man dama gëmoon balaa ñuy voté loi boobu man dama gëmoon daanaka man dama nekkoon adjoint au maire de Dakar ci commune de Mermoz Sacré-Cœur parce que noonu la loi bi euh, noonu lañ ko bindee e je pense que jamono yooyu man de yàgg naa ko wax te man damay campagne sax 2014 peut-être Madiop nekkuloon maire Palla Samb bi tamit nekkuloon maire wante man damay campagne 2014 képp ku ànd ak man ci campagne bi dégg nga lu mu la wax dama ne man aw ma woon bilan su ma bilan mooy bilan Khalifa Sall. moo tax ba may voté acte trois de la ma ne ah ñaan naa yàlla yàlla may ma ma am ay recette am koppar ma am kattan man tamit wane suma taxawaay ma ne wane suma Pastef ak suma pas-pas conseil municipal lu maire moo saxe que ma ne wane tamit euh, mën-mënam kon ñu voté tamit loi bi budget bi jóge ci mandat 2009 2014 jóge ci 300 millions dem ci mandat 2014 2019 dem ba presque deux milliards et demi yéen di ngeen gis ci tableau bi di gis benn total total de six cent quatre-vingt-sept millions cent cinquante-deux mille cent vingt francs loolu mooy taxe yu ngeen xam ne ni état du Sénégal jël na ko suñu biir commune ci année deux mille vingt te loolu état bi joxoon nañu ko deux mille dix-sept mille dix-huit deux mille parce que loi bi ñu ngi koy voté deux mille treize non ñu ngi koy voté deux mille quatorze mooy loi euh, 13-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités territoriales loolu mooy lu ñuy woowee ñun acte 3 de la décentralisation Macky Sall nag man bind naa fi lettre jëbal ko ku ma ko nar a jëbal mu ne ma na nga woo ku yor le centre fiscal de Dakar Bourguiba moom dina la wax sa ay recettes lettre bi mi ngi nii moom laa ko bind madame Sall ma ne ko 2020 bi de maa ngi xaar su ma ay recette ba tey gisaguma ko mu ne ma sa recette soo bëggee xam ci lu mu tollu ak fu mu tollu na nga ku ñuy wooye le centre fiscal Dakar Bourguiba ñu wax la sa recette yi nu mu toll ak fu mu toll centre fiscal Dakar Bourguiba mooy tableau bi si vous plaît le tableau centre fiscal Dakar Bourguiba moo ñu yónnee tableau bi bu ngeen di gis total 687 millions ne ñu yéen commune de Mermoz Sacré-Cœur commune de Mermoz Sacré-Cœur Robert ramène le tableau s'il vous plaît wuñu ko c'est le centre fiscal de Dakar Bourguiba Nous l'avons recouvré au nom de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et cet argent est disponible pour vous pour 2020. L'État du Sénégal kan moo ko toogal ci mbiru décentralisation mooy ku ñu woowee sous-préfet ci lépp luy commune ci lépp luy mairie de ville mooy ku ñu woowee le le préfet lépp lu nekkoon avant ay conseil régional ak ñoom seen mooy ku ñuy woowee le gouverneur donc l'État du Sénégal ba ñu voté suñu projet de budget ci 2020 ñu jëbbal ko ku ñuy woowee préfet ne ko préfet de suñu budget mi ngi tollu ci tant de milliards fii la ñu jël suñu xaalis fii lañ ko fas dugal préfet bi moom mooy def lu ñuy woowee ci tubaab le contrôle de légalité xool est-ce que lu maire yónnee est-ce que loolu méngoo na ak luñ ko may ci sañ-sañ am déet moom état du Sénégal à travers son sous-préfet moom moo approuvé le budget de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur 2020 kon tey nag suñu nee ba ci ñoom à travers la direction générale de la comptabilité publique et du ngi leen di nuyu leen di jaajëfe wante ce problème il est politique et nous allons le régler sur le plan politique il décide que la loi de 2013 barre 10 du 28 décembre 2013 cette loi a été et modifiée en 2019 par une loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019 et qui attribue malheureusement pour eux, mais qui attribuent ces recettes aussi bien aux commune et à la ville maa ngi déglu waaw dama ne loi boobu moo nekk euh, xeetu recette yu mel nii moo xam foncier bâti moo xam foncier non bâti ñu ko moom mooy communes yi ak ville mais loolu ku dégg tubaab loolu lenn sa bopp lu tax yéen deux mille dix huit mën ngeen wane tableau bi lu tax deux mille dix huit non deux mille 2018 2019 ngeen jox ñu taxi maintenant nag 2020 ngeen taxaw nekk non c'est c'est pas ce tableau là Samuel taxi ñu ngi nii vous plaît remontez là taxes ñu ngi nii vous les voyez ces taxes-là ont été recouvrées en 2000 ces taxes ont été recouvrées en 2018 en 2019 en 2020 on a été privé de ces taxes te di ngeen gis tamit même ci montant yi ngeen gis que lépp ci montant yi day wane ay caaxaan pour commune bi bañ a jot ci ay recettes bu ci gën a bu may gën a ñaaru nag mooy won leen la fiche de déclaration du siège Taxawu Sénégal maa ngi jégalu nag suma mag suma xarit Pala Samb wante nee naa ko mel ni yow la gaa yi yëpp man saa bu may gaa yi bëgg galgal rek dañ jël affaire rek sandi ko commune de Fann Point ba may xeex ci mbiru géej gi littoral bi day ñëw tegal ma benn poto lamp ñu ne ma sa commune bi fii lay yem commune Fann Point bi fii lay commencé ma ne bon yéen comme ni ngeen ko gisee garaawul wante bii déclaration bi lu tax ma koy wone maa ngi ci jégalu nag ku ñuy woowee Khalifa Ababacar Sall nekkoon fi maire de Dakar wante moom mbiram lépp a leer moom ci kilifa yu fi yàlla baaxee mu ñu nekk fii biir Dakar je crois que moo fi jiitu ci déclaration de patrimoine parce que daanaka amul lenn lu muy lu muy lu muy nëbb siège u xalifa Sall bu nekk Sacré-Cœur 2 ci deux voies mooy bu ñëwee siège u taxawu Sénégal yéen ñëpp gis ngeen lu ñu lu ñu cercler en bleu nii mooy Sacré-Cœur 2 ci suuf lu ñu wone ci jaune mooy foncier bâti lu ñu wane ci verte mooy tax su les ordures ménagères ñoom nee nañu que siège u Khalifa Sall bu nekk taxawu euh, siège u Khalifa Sall bu nekk sax cinq deux moom dafa nar a fay l'impôt ci commune de Fann Point ah mbokk yi nekk Fann Point rek dem leen ko yéene wante lu lu lu lu nekk ci commune de Fann Point dafa nar a toog Fann Point lu nekk ci commune Mermoz Sacré toog ci commune Fann euh, Mermoz Sacré lu nekk euh, Grand Yoff des des Grand Yoff wante lu mel di woon nii peut-être Khalifa am sañ-sañ wane boppam euh, euh, euh, excusez-moi wane wane bosam mais lii mën naa leen kénnal ay déclaration yu mel ni lakk jeexalu ko ndax lan parce que dañu nekk Barthélémy Dias narul am ay koppar liggéey parce que Barthélémy Dias narutul doon lenn biir Sénégal te Barthélémy Dias narul fi doon maire ba ngeen xam ne nit ñi dañuy am yaakaar ci moom mais man ba may wut mairie damaa wut mairie pour liggéeyal suma askan man wutuma mairie bu nekk fi di caaxaan te bépp maire bu fi nekk su ma amee tey sañ-sañ di ànd ak Madiop Diop bii bu nekk Grand Yoff ma am sañ-sañ tey ànd tey ak Pala Samba bii ku ci nekk soo demee tey goxam am na lu ma fay liggéey lan moo ko may mu mën a liggéey loolu acte trois de la décentralisation balaa acte trois yi dugg en vigueur commune Mermoz Sacré-Cœur mosul am budget bu dépasser trois cent cinquante millions acte trois moo jëlee budget bu trois cent cinquante millions yóbbu ko ba presque deux milliards et demi tey nag ñu may bëgg a xañ mais bëggoon naa Macky Sall tontu ñu wax ñu lu tax moom mu daal di fokkati li di mbalit bi ci loxo ville de Dakar parce que moom ci boppam moo waxoon mbalit bi dix milliards ñu koy woo ci tubaab ordure mu ne les ordures en fait c'est de l'or de l'or dur pour wane xaalis la quoi ñu daal di ko jëlee ci mairie de Dakar yóbbu ko fële ci UCG ñoom ñu créer seen UCG dem créer seen ministère renouveau urbain di xëcco place indépendance di xëccoo place de la nation di xëccoo pavage ak ak ak Khalifa Sall nga jëlee ko ci loxo Khalifa Sall indil ñu benn parti bi tey nag nga na ngay jëlaat loolu et tu le renvoies à la ville de Dakar dama bëgg a wax ci leer Dakar a sa raison d'être am na ay programme commune du ko doxal ville moo koy doxal tey su ngeen jëlee pavage rafetul ngay dox par exemple ci dëkk bi nga gis benn côté tali bi ñu pavé ko beneen côté bi kenn ko parce que loolu du du du am harmonie urbaine kon y a des programmes comme le pavage le lait à l'école l'éclairage public euh, des des programmes avec des des, des volets sanitaires ñu nga xam ne ni la ville doit les porter moo tax Abbas Ndao doit rester dans la sous la responsabilité de la ville de Dakar mais il on peut pas faire un acte 3 il n'y a aucune évaluation kenn xayumoo ko kenn xoolul affaire bi lan moo ci baax lan moo ci baaxul lan nañ ko doon euh, liggéeyaatee nuñ ko doon xoolaatee nuñ ko doon euh, euh, doxalaatee nga ne bon maintenant yow da ngay indiwaat beneen loi loi boobu man personnellement ci dëkk bi laa nekk su ma collègue maire yi ñu ngi nii nu ma Palla Samba wax ci ban réunion lañ ko fi mës woo ne dañuy waxtaan ak moom ci 2019 ci benn loi buy modifier ak compléter acte 3 Madiop Diop ñu nii maire Grand Yoff laaj leen ko fan la ñu mës woote ci 2019 ndaje wala séminaire parce soit soi-disant acte 3 décentralisation dañ koy modifier ak complété ko par une loi en 2019 damay wax loolu yëpp parce que façon wu def politique bi président Macky Sall bëgg indi biir Sénégal dafa ñaaw te dafa jekkul ci démocratie nga toog taxaw ne man du ma organiser élection yu nga doon organiser depuis 2019 nga toog ne man damay jéem a xool nu may faire disparaître la ville de dacar ñu ne loolu même soo ko defoon tamit doo ci am ndam parce que commune yi tant que commune ñu ngi fi ñoom dinañu wane seen mën-mën ak seen majorité biir Dakar nga ne boobu baaxul naa indi nu may defee ba daal di nommer maire de Dakar par décret présidentiel. nga dem ba ci biir nga xam ne ni que même soo nommé woon maire de Dakar par décret présidentiel commune yi ba tey doo fa am ndam tey nag nga ne maintenant damay xool naka laay seere Dakar ma indi ñaar ba ñetti communes yu mag bu ci des nag. naa xool xaalis bi nu ma koy dugalee fi génne ko fële ça ça va pas continuer moo tax ñu woote tey ndaje bi pour que askan bi mën a yëg lu xew bu ci des nag mooy askan bi mënoo xoolaat taxawaayam parce que ci commune bu maire de Mermoz Sacré-Cœur su ngeen xoolee tey tableau de bourse di ngeen gis ba ñu commencé joxe bourse ba tey yéen di ngeen gis ne ni que commune bi at bu nekk mu ngi yokk loxoom ci bourse yi 2017 2018. commune bi mi ngi joxe lu tollu quatre-vingts millions ci ay bourses mille dix-huit deux mille dix ñu ngi joxe presque cent millions ci ay bourses deux mille dix-neuf deux mille vingt ñu ngi joxee presque cent trente-quatre millions ci ay bourses deux mille vingt deux mille vingt et un ñu ngi joxe presque cent soixante millions ci ay bourses te école yi ñu ngi may dégg su leen neexee yéen ngeen dem defi enquête dama ne commune Mermoz Sacré-Cœur amul kenn ku fiy judd nga nekk fii lu ñuy woowee orphelin nga ñàkk sa papa ak sa yaay am bac ba nga dem jàngi mairie bi toog di la seetaan amul wala nga ñàkk sa pap wala nga ñàkk sa yaay wala sa parents yi nekk ay retraité wala nga am bac ak mention nga ñëw ne da nga bëgg a jàng ñu lay gantu ci commune de Mermoz Sacré-Cœur amut waa yaay ma ñu may dégg waa Subdeco waa ISM waa IPG ku lim jum ku lim jum dem naa ba convoqué fii ay délégué de mën na leen bàyyi leen di joxe ay certificat de résidence pour xale yi dem di di di di ñëw wut si ay bourses nous avons investi sur tey nag parce que xamatuleen lan nga def ak Barthélémy Diaz nga ne waaw nañ ko nañ ko nañ ko privé de certaines recettes mais ça c'est de la méchanceté li ab mbiru soxor la c'est pas parce que yow Macky Sall sa ay doom wutuñu bourse nga ne yow tamit soxloo bourse te mam Macky Sall sax dafa am dafa am dafa am lu ma fàtte woon wax si tubaab parce que këram bu nekk mépp je interpellé du benn yoon du ñaari yoon nee naa ko génneel sa déclaration foncier bâti ak sa taxe sur les ordures ménagères non mais mu ngi may dégg kër gi mi ñi nii bakkane lool macha allah waaw rafet na lool mais foncier bâti bi ne leen Macky Sall wax ñaata da ciy fay comme moom nee na ci gàttal amul benn ndono bu mu amee bu mu jëlee ci papam wala ci yaayam mais daal apparemment entre 2000 ak 2012 moom liggéey na fii ba am juróom-ñetti milliards moom am na ko waaw maintenant kër gii mi ngi biir commune de Mermoz Sacré-Cœur gis ngeen nee na këru Khalifa Sall nekkatul Mermoz mi ngi Point E moom na leen wax këram fan la nekk dama ko fàtte wax ci tubaab. C'est pourquoi je demande au président Macky Sall, comme il a décidé que le siège Tahaou Sénégal, qui est la maison de Khalifa Sall, qui est à sacré n'est plus dans la commune de mermoz sacré mais c'est dans la commune de Fan.e. J'aimerais que le président Macky nous dise sa maison de, de Fan-Mermoz. Elle est dans quelle commune C'est à Wakam C'est à Yoff J'espère qu'on ne l'a pas amené à Fan.e parce qu'à partir de ce moment, moi je <laughs> dama ne priver Barthélémy Dias de taxes ça ne fait pas sérieux vous allez priver à des centaines d'étudiants de bourses du ñu am bourse bu dem jàngi am na ay xale yuy xëy ci mairie bi daan seen doole on sera obligé de les arrêter mais lu ma ci bëggoon wax mooy képp ku jotoon am bourse ci mairie bi yaa xam sa bourse lu loolu ci dese ci jàng bi at la wala ñaari at na nga xam ne ne que mairie bi su jëlee engagement ci yow dañ def suñu kéem kattan ba commune bi daal di honoré ak engagement te maa ngi bëgg tamit dalal xelu école yi euh, qu'il sache tamit que lépp luy euh, lépp luy engagement lu commune bi tamit euh, jël ci école yi ak ci bourse yoon ci taxaw incha allah ma bëggoon tamit yokk ci balaa may daaneel ma bëggoon tamit ci lépp luy tali bu mairie bi jël ci engagement au niveau de Mermoz Mermoz première porte ak deuxième porte dinañ ko liggéey mais dama bëggoon wax ci leer lépp luy Mermoz comico Mermoz pyrotechnique tali yi ñu fa naroon liggéey dañ koy annulé kooku waxuma ko ci tubaab mais nous allons annuler toutes les routes qui ont été prévues au niveau de de Mermoz comico et de pyrotechnique parce que le budget de la commune de Mermoz Sacré-Cœur ne peut plus malheureusement supporter cela bëggoon tamit yokk pour dire que lii di poste de santé bu Kadak Amitié ak Baobab boobu tamit dinañ ci def suñu kenn kàttan liggéey ko te semaine bi incha allah jeudi dinañ commencé liggéey poste de santé wu Sacré-Cœur 3 waaw tamit euh, CM Adama Diallo pour 158 millions boobu tamit dinañ tamit liggéey lii di euh, canalu école Sacré-Cœur 1 à Case de Mermoz yooyu la ñuy liggéey yeneen engagement bu commune bi jël auprès des populations ñu leen di jëkkalu parce que xaalis su amee di ngeen ko yëg xaalis su amee tamit nous avons la responsabilité ñu mën leen ko yëgal donc pour terminer en disant que lii dañ koy ñaawlu euh, façon bu mel nii di politique dafa ñaaw bu ci des nag euh, maa ngi dégg semaine dernière dañu woo suma tur dañu woo dañu woo suma tur fële ci tribunal fu ñëwee cour d'appel de Dakar ci ci xeex bu amoon ci mairie bi fukki at ci ginnaaw du noonu waaw boobu de su ma ay avocat jotuñu benn convocation mais dama bëggoon tamit euh, ngeen may moom wax ak président Macky dafa am ay caaxaan moom luñ koy ñaan mooy na bàyyi yooyu parce que yooyu moom du fi amati yooyu du fi amati te il faut qu'on se comprenne ay ñu ne suba mooy élection ñu ne comme suba mooy élection sa moroom yëpp ñoom ñu ngi campagne ci réew mi yow nga nar dem campagne yi ñooy la dañ laa woo cour d'appel dama bëgg a wax ci leer yenn yi dañ ñu roo te man yebuma kenn te du ma naan kenn di ma yeb dama bëgg a wax ci leer bu ci tegu maa ngi nuyu di jaajëfe di di di dalal bu baax a baax a baax waa Cour des comptes ci commune de Mermoz Sacré-Cœur parce que ñoom waa Cour de comptes seen liggéey la liggéey wante lu ma ci ñaalu rek mooy dañu bàyyi ba suma mandat bi jeex ba may waaj a ñëw di liggéey leneen ñu ne dañuy ñëw audité ma ne leen bismilla wante mairie ba nga xam ne ni 2009 ba 2021 audité woo ko mooy quasiment presque 12 ans. nga dégg Barthélémy Dias yi ngi yëngatu ngeen ne da di yónnee nit ñi ñu ñëw gestu ci mairie bi ma leen di dalal wante dama bëgg a wax ji leer yaa leen xam cour d'appel yaa leen xam cour des comptes yaa leen xam ban cour ngeen di woo man Barthélémy Dias ak ñu ma àndal su ci yàlla ànd incha allah dinañ candidat mairie daa Dakar waaw incha allah parce xeetu nooteel yi. ak xeetu xoqotal yi san ne passe pas ak Barthélémy Diaz mais rappeler à l'endroit de l'opinion que laata ñu dem ci élection président bu 2012 non jëkkal la ma bu 2019 dañuy yónnee inspection fële ci mairie de Dakar Khalifa Sall nag nee na moom inspection bi nee na lu ñu bind ci inspection bi confidentiel la nee na moom du ko génnee dama ne man lépp lu ñuy bind ci inspection bi naa génnee lépp su ma yónneewu ci confidentiel su ma yónneewu ci parce que damaa fas yéene candidat te Macky Sall mënu ma daf ko mënul parce que dañu gisul ana réew ñit juddoo fa dëkk fa yaroo fa saay bu amee lu mu namm ci réewam ñu ne soo àndulee ak président Macky Sall doo bokk ànduma ak Macky Sall tey ànduma ak ëllëg te incha allah maay bokk ba mu neex ba mu saf saf waaw noonu lay demee kon nag euh, mbokk yi je pense que j'ai été un peu long je ne sais pas si la communication maa ngi remercier une fois de plus euh, les uns et les autres euh, su amee ay questions ñu mën ci jël ñaar ba ñetti questions comme c'était un point de presse su amulee ay questions ñu mën a yeewi ñëpp et puis euh, remercier tamit euh, l'équipe technique qui a eu à faire le diapo la présence de la presse et puis je pense que s'il n'y a pas de questions-réponses on va voir. Il y en a?